yàlla yàlla nañu boole jëgal te nanguñ suñu koor li daf ñu yemoon ci laysa zib wala zib yaakul lahu zibin wa yaakul baaduna baad uryaanan mu ne bukki wala till <coughs> ànd ak li ñuy bëgg yàpp yëpp kenn mosul gis bukki wala till bo xamanteni ni mi ngi nek bokkam te ñun nak suñu toll ñoo ngi jàpp di de suñu biir kenn ku nek bo toge sa toogaay balaa neex rek nga commencé di jëw di jël di diw nangam diw nangam diw nangam diw nangam te li ngeen di wax yépp ay jëw la yoo xamante ni kenn ku daa mel ne kenn ku nekk mi ngi tiim moromam di ko dagg di ko lekk lahma axihi mayitan fa karihtumuhu tuhibbu an taakula lahma axihi mayitan fa karihtumuhu yàlla mooy ndax da ngeen bëgg jàppale seen yaram moom moo ko di ka dagg di ko lekk loolu mooy jëw ñu tax yàlla nañ si yàlla mosal <coughs> mu ne fa la alana xata yaa naa sitata muxbilan fa laysa anta satiru kasifa mu ne ànd ak loolu yëpp de ñun yàlla suñ ñun doomu aadama yi ñoo ngi toggoog bàkkaar yu bari te bàkkaar yooyu ñu toggool bari na lool ànd ak lépp yàlla mi ñuy sutural moo ne bu fekkonte ne ku def bàkkaar rek <clears throat> yàlla wan la ne yow da ngaa def bàkkaar boo génne ñëpp xam ne kii def na def na bàkkaar mu nekk signe boo xam ne da koy da koy wane si yow màndarga ba ku xool xam ne kii am na bu mu def bu boobaan kon dina metti lool waaye ànd ak loolu yàlla mi ñuy sutural di ñu sutural ba kenn ku boo loo mën a def. boo génnee yaa xam yaa yàlla waaye kenn du wax ana lan moo tere nag comme yàlla ni ñu suturaale ñun lan moo tax moom ñoo suturaante seen biir suñu biir ndax nit ki yàkkamti na moo moom def loo lenn rek mu yàkkamtee jëm loolu si saasa daal di koy tas rawatina naa yóbbu ko si réseaux sociaux yi ñaan diw nangam diw nangam muy kontaan de te la mu def noonu de moo ne yàlla moo gën a moroom mu yàlla gis na la mu def moom te suturaal na ko moom la mu làqat def ko yàlla weeru ko la mooy tamit weer jàmbur ana mbokk jullit bi ana jullit gi ñu bokk ana yàlla gi ñu bokk ana yonent bi ñu bokk yàlla dañuy suturaal du ci dañuy fi dañuy def ay xéewal dañuy xéewal guddeeg bëccëg te yow moomu nit day sa mbokkam ji dafay def mbir rek yaw doo ngi tam ko doon jox dara sax nga xañ nga nga commencé naan comme yaay def li du ma la dara te yàlla taxul woon fekkee yàlla rek moo tax yow kon na jox def te xam ne yàlla bu yàlla taxee du yàlla du jeex te yàlla du jeex te yàlla moom moo mooy ki xamante ne moo ñuy jéggal ak lu def dañuy jéggal léegi nag mu ne yéedaaru naa maa taxu nafa ila fiha ila nahayiba walayha waladayha wamal insaan ila asatira mu li nga xam mooy àdduna du dañ mu bés bu nekk mu ñuy wan boppam di ñu xool di ñu wan boppam naan ñu man àdduna la waaye maa ngi nii de nga xam ne àdduna ku bu ñàkk lu ñàkk solo la na àdduna bu ñàkk woon solo kon yàlla du ko dénk ñi nga xam ne ñooy Namruud ak Firawna ana ñooñu ana ñooñu ana Namruud la amoon si doole ana na ñu amante fi doole am na ñeneen mel na ñoom ñëpp ñëpp xëy dem nañ kon yow na nga xamante ne ab ndëkk jël topp ndax boo ko toppee de lu yàgg yàgg fa ngay mujj parce que fañ dem ngay fañ mujj fañ jaar ngay jaar rek comme da ngay dem te wóor na ngay dem nag jéem a def lu baax moo gën bu fekkente ne gis na la yow isa ahsanta yawman asa a tahdi hadan gis na la de yow nga nekk nit ko xamante ni da ngay xëy tey def lu baax lu baax la ngay def ñëpp kontaan ci ñëpp daal lay tàccu ne kii lu baax li mu def tey baax na baax na baax na baax na waaye ñu xëy suba rek nga def jëf jëf jëf jëf joo xamante ne lu wutee lu baax li nga defoon tey la xam ne ñëpp dañuy testé seen loxo seen gémmañ daan ne daan ne ndax kii moo kii moo fi defoon démb lii mooy léegi nag li nga xam ne mooy te saanu ko seen en naasi baasira kon ndeket lu rafet loolu nga defoon loolu démb da ko doon def pour loo xamante ne pour plan rek pour moo boo mën a pour def sa sa sa nawee nga lii léegi da nga gis koo xamante ne dafay si melokaaram lay ñëwee daal di ñëw xam ne waa kër gi de ñu ñu am diine lañ mu ne mën naa jaar seen kaw bu ñëwee gàtt kurusam sol daraam ju rafet ñëw toog di waxtaan. bu toogee ba yàgg mu ab mu abbas mu mu mu ne mu ne mu laaj wanag damay dem ci wanag bi abba sat la dem bu génne raay toog jàpp jàpp mu sell jàpp mu sell lay jàpp bu bu fa jógee dem daal abba si jaada loolu te julli jotul mu def ñaar rakk fekk borom koy ga ne ah kii kat ku baax la léegi am na lu muy lebal su ko defee bu ko defee ñaar ñetti yoon ñeenteel ba rek nga dégg mu ne ñu def na def na leen parce am na lu mu doon yoonam am na ndaw suuf doon yoonal bu su jotee rek musiba am na kon nekkate moom la mu doon rafetal yëpp am na lu mu doon lu lu lu waral loolu mu doon def mu ne fa instant ko c' est na nga ñaar yëf da nga ko doon def rek pour am plan boo xamante ni moom ko doon lal pour mën a egg fa nga jëm yal na yàlla doolu dimbali jàppale ñu aar ñu sàmm ñu suturaal ñu bi jaahi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam defal ñu ko defal ko njaboot gi. dafa ko mboolem ko bëgg yalla sallallahu alayhi wasallam yàlla yàlla gëna yëk tur yalla sallallahu alayhi wasallam ba ñëpp di ko wax di jaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam salli wa sallim wa barik ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman salaamu aleykum wa rahmatullah